L'opposant Ousmane Sonko avait entamé une grève de la faim depuis son incarcération du 31 juillet à la prison de Sébikotane. Physiquement mal en point, Imam Moustapha Niang recommande un remplacement de la grève par le jeûne. Ce n'est pas la peine de continuer la grève de la faim qui inquiète les populations de jour en jour. Je lui demande d'arrêter cette grève de la faim et d'entamer le jeûne, car pour un musulman, le jeûne peut régler tous les problèmes. yaakaar suñu borom ba dañuy faral di wax sax bu amee soxla nga woor ñetti fan loo ñaan yàlla mu jox la ko. par ailleurs l'imam exige de l'État à faire preuve d'humilité en temps de manifestation. waaye di leen di ñaan kenn ku ci nekk saa yoo xamante ne na jog na kenn ku ci nekk jéem. J'exige de l'État, en moment de manifestation, d'avoir une certaine maturité pour pouvoir calmer la situation, car il a plus de responsabilités que l'opposition, donc je souhaite de lui un certain retenu quand il y a manifestation. Récital du Coran, prières, hommes et femmes, tous à la mosquée pour que la paix règne dans le pays. ba nga xamante ne soxla nañu jàmm. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la paix, car le pays a besoin de la paix. état walla nguur soxla na jàmm ci réew ala kulli xaal loolu dafay daal di nekk ci saasa kon di ñaan rek xanaa. les populations aussi ont besoin d'une paix durable. politique bi dinañ di ñaar ñoom ñëpp ñuy ànd di def jàmm di wax jàmm waaye itam di àndandoo di wax jàmm. Imam Moustapha Niang, après la prière de vendredi dernier, a exhorté et à l'opposition et au gouvernement de faire preuve de maturité. Il a par ailleurs prié pour un Sénégal de paix.